tey nag Sokone TV indil leen benn reportage si bile projet ñuy woowe trifo for the Future muy tekk si kàllaama kocc garab yi pour l'avenir bile projet nag ñëwam si ñaari région yi muy fatik ak kafrim askan wi gis si njëriñ lool moo tax sax ñu def si benn reportage demoon seeti ñi nga xam ne dañoo bénéficié wu si bile projet ñëw nañ si dëkk bi nga xam ne moom mooy Ngungul ki nga xam ne moom mooy Naatunkara moom de nee na projet bi moo leen jàngal ñu mun a utiliser xeetu bio ngir moytu bu baax a baax engrais gi nga xam ne chimique kese la ñu am na buñ ñu jàngal boo xam ne mooy bi ngay boole kasiya bi kaane bi saabu bi nga togg ko nga bàyyi ko nga moom ngay bugg di <coughs> moom ngay bugg di ci kaw gàncax mu teg si ne jàngal nañ leen nu ñuy nappee ndax nag tey jii nii ñu ngi jaay di si lekk tey sax suppu kànja la toggoon famille bi lekk ba suur tey jii moo ci mujj hmm. tey togg naa ci añ bu ci suñu kanja bi togg naa ci kanja subu kanja ñu mm. neex ñu añ ñun ñëpp kon xam nga loolu dèjà famille bi su dee añi tey bi rek gis nañ ci suñu bopp dèjà mm. Amath Dieng bu Daga Jawdin moom de nee na projet bi bi mu ñëwee si lii la leen fekkoon ak léegi xam naa ne li ma fi récolté am na ñoo xam ne bu ma leen ko waxee duñ ko gëm mais man mii liggéey fii suma campagne bu ma mën ci liggéey xanaa ay huit cent mille wala ay ay un million et rek waaye Aliou Dianko moom sax mu ngi ñuy wax tàggat gi nga xam ne projet bi tàggat na leen si. soppi nañ lu bëri daal ba ku nekk nii mun naa ne am na lu bëri loo xam ne xamoo ko woon mais waa projet bi tax na ci côté boobu yow mun nga defal sa bopp te kenn du la ne nii ak nii. xam nga bu njëkk dañ doon dem uuti nit ñëw fay ko kaay defal ma lii mbaa kaay greffier ma nga fay ko mais léegi yooyu yëpp ñu ngi koy munal suñ bopp hmm. à cause de waa fa ñuy jeexalee nag ki nga xam ne moom la ñu dënk zone bi di zone yi Toubacouta ñu koy woowee Major Sonko muy bàkk di kañ bi le projet seen xereñaay ak njëriñ gi ñu am ci askan wi. waa njëriñ bi bi am ci askan bi dafa dafa rëy parce que ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi am encadrement ONG bi lu bëri li ñu daan dem marché di jënde pour yóbbu ko seen njaboot léegi jëndatuñu ko. nit ñi ñooy ñëw ci ñoom di jënde di dem di jaay garab yu bëre yi nga xam ne euh, ñu ngi ko ciy def lu mel ni lesena lu mel ni pois d'Angole lu mel ni moringa euh, xeetu garab yi nga xam ne am na njëriñ ci mbéy ci askan bi même ci ci jur ji nga xam ne ñooñu la ñuy yore ba tax euh, Free ONG bi bu ko mënool yaatal ci biir réew mi dina am solo trop ci gestion environnement. majeur ñu ngi lay sant di lay gërëm tey mbënn mi xale yaa ngi koy mbëkk ndax eh, lii Free nga xam ne mu ngi koy def ci askan wi di leen di jàppale ba ñuy am koom goo xam ne dinañ mun a fajal seen bopp seen aajo ndax eh, mën naa faj lii nga xam ne xale yaa ngi mbëkk mbënn mi di dem. ci xale yi parce que dañuy xamul dañuy xamul valeur eh, agroforesterie parce que Free lu muy def agroforesterie. garab yi tey boo ko daggee sa moomeel la boo ko bëggee dagg dangay dem ci eaux et forêts nga tagg dëkk yu bëre ñu ngi fii amuñu lu ñuy toggee bois bi boo ko boo ko daggee da ngay koy jaay comme mat li ñuy béy ci légume loolu aussi dafa am njëriñ man mi waxak ak yow damay def am naa am na am naa verger damay def euh, maraîchage mais wax dëgg yàlla li may am ci maraîchage dinaa ko njëri dinaa ko lekk lu toll trois à quatre mois voir même cinq mois yooyu su fekkee euh, dama koy jaay dana dana ma indi koom bi nga xam ne duma dem fen maa ngi ci sama mbir jaboot may am li may am di suturlu di sant yàlla ba ñu demee si dëkk bi nga xam ne